xamee ne Macky Sall dem na fa uti wàllu ndax Macky Sall dafa naqasaale jaar no at sot pour jéem a jaar ci président bi nga xam ne moom mooy président Mauritanie pour mu abaisser tension bi ndax Macky da doon jaar pour ñu jubalal ko war waxtaan wara fekkee ko ci boole lu ci mënti am nañ seeti ki nga xam ne mooy président Mauritanie sama xarit mi mi mi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh wa jaladrala alhamdulilah ma dawla la wala ashara ala Abdou Aziz wala ali <laughs> ki sama xarit la kii kii sama xarit la gis nga président bi wóor la yàlla bu ma la jóg Mauritanie directement këram laay dem Faraani nii la mais président boo xam ne ah pour nga gis ko problème la mais kii gis ko du problème waaye bàyyi la nag gis nga yéen waa APR yéen a ngi fàttalu seen réunion ba nga doon def ravin ba ngeen doon def ravin moo fa ñëwee GIE ba pare au ngeen compal ma noonu ngeen ma bàyyee ba dem te ngeen toog fàtte ma comme que man ngeen mën a fàtte ngeen fàtte réew mi ma yow yaa ne kaay wax ñu demee. asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu dama waroon sax bañ parce que wallahi Sénégal ak Mauritanie dafa jege diggante bu ratax ba ndeng la waaye Macky Sall bi mu faloo daf ma daf ma dafa dem Gàmbi bàyyi ma moo taxit bi problème amee waa Zala ala turel genre ma taxaw rek Sénégal ak Mauritanie mooy baraade. sénégalais mooy baraade Mauritanie mooy kaas sénégalais mooy suukar Mauritanie mooy warga senegal mooy fourno Mauritanie mooy kari amul benn diggante bu gën a tax ba ndenge diggante boobu wa zalaka la jël wax leen rek loo xam ne amul sénégal te amul Mauritanie farax caaye neex bool fan la jógee farax neex boole kan moo ko jaay naar moo ko jaay ñoom baabu ñoo ko jaay dibitari kan moo ko jaay ñoom baabu warga ko jaay bitik eh, ñoom baabu wasila xale wala tara jala doro ila xataral lan la yàkkamti di bar ba dem Gàmbi bàyyi ma fi jën Mauritanie moo gën a cuq sax jën Sénégal xanaa xamul loolu moo tax ndar-ndar yi bëgg ma jox leen licence de pêche wasila ala toro ila jala dara wala xadal dara tuna wala la wala fa dara jala doro sila ala Sénégal Mauritanie wala kala zala la wax naa ko ko man mi wax ak yéen ñaari dëkk yi rek ci àdduna ñoom ñooy bokk lekk bokk xalaat bokk ndey bokk baay bokk sëriñ boo demee Gambie am nañu sant Ndiaye nga ñëw Mauritanie am nañu sant Ndiaye nga dem Gambie am na sant Fall nga jaar Sénégal am nañu sant Fall nga ñëw fii Mauritanie am nañu sant Fall وسعة البيضاء نحشد نجيجلن ولا خطر الجيل عطر السبع عطر لا ولا الذين خطرون ألا من قدر لا لا فعطر لوش عطرته man mi wax ak yéen dem naa ndar xam naa ndar ndar ndar la naaru ndar ndar la dégg naa wolof dégg français dégg arab wala am na ku sant ay dara ku nekk Sénégal am na ay dara bu nekk Gambie am na ay dara bu nekk Mauritanie kon ñetti dëkk yi kay benn la bopp bu la kenn mënu ko xar ñaar ولا انزل على ترى جل ولا تنسل على تر لا ولا عن سنغال مرتد نوادي بلا بلا فلا ترى لا جارة من على وزل على ترى لا على وسح ترى لا لا ممكن بمجاري جنب نتوت دفور نتشبت نيو مرتني واي نتوت جنب تعالى جاترة لياك سوق نيو ملاك الولا عزة ترى لا حضور لا وزل كان سنغال مرتد جل اللي هو زلك لو ترى على زل نونو احضر اللي شوف على هو ترى زل فرع احضر اللي شوف ما ندو ما بريزاب وخمنا ده ما يوخ سجن ناو يعني نيتا حود ما لك وخ نمجو تاين قد فتلو ملني ولا تقلو زلانة تلي على كلالو تخول اني خولكو لا وزال دخيا يا جامي ده فنك كو خمنا واجعلن donc woo man amul benn problème ndax soxnam bii nga xam ne moom la takk laa la wasila atara leen sama cousin la cousine la Till är det arab le ne yow kay noppil rek Macky ba noppil toogal rek dinaa ko woo kay toogal rek histoire kay dafay jeex kay boobu léegi moo ngi wax yow tontu woo kay ma woo ko xool waaye xam nga ne Sénégal Mauritanie moo gën a jege kay yow boo jaaree Fuuta kay jël euh, wala li si xadra jël gaal gi kay egg allo ah yaya jaame Abdou Aziz ma daa daale waa Zéla na nga def alhamdulilah waaw léegi amul problème yéen ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay Sénégal Mauritanie benn bopp la kenn mën na ko xar ñaar wajal adaratu waaw mu ngi nii toog sama wet dañu ko def ne wax naa ko ne ko wax dëgg yàlla loolu li nga am sax man awuma ko ndax fii moo ko gën a jagate fii la ko bàyyi dem foofu moom mu ngi dëkk Matam seen dëkk ngii joloñ la ngir ji loñu ak ak ak nois di boo saqatee sax balaa nga tuflit nga egg fa moom bu la fonkee ba ñëw ci yow kay lii warul am seen diggante wa jël xatra lii wa zal man kay maa war a mer waaye yow warul mer wala ka leel aleel ah, jeex na ne ko baal ma àq mu ne baal naa la yal na yàlla boole baal benn dëkk la kenn mu la ko xar ñaar moom moo la koy njëkk a wax yow yaa yow tamit loolu soxalul ay moo la koy njëkk a wax wala jàll tara ata waaw bul kite euh, yow Macky pare nga pour wax ko mu baal la àq Eh, maanaam dama fay expliquer eh, seen histoire kii naan na ma ko njëkk a wax war a dama nekk ci diggante bi rek kon xaaral ma pëlëf waaw ah, pëlëf ko sa yaay de makka danga noos noos bu neex ne caas dago yàpp lii bar maro di mene alkaati di ma yàq gendarmerie di ma seyne ne faramadoot ay ah, faramadoot faramadoot ne faramadoot ay ah, ay faramadoot faramadoot faramadoot ay faramadoot ndax saay eh saay bi ci yow la yaa yaa jaabe saay bi ci yow la nga ne doo saay kon d'accord ko sa yaay day màkk da noos noos bu neex caas ko li bar ma rodu mene alkaati di ma dàq gendarmerie di ma seyne farama dut ay bi ci yow la makki kon al am waq ba baal la ayca gaawal yaa <laughs> illaahi mais nekkate kon président yi dañoo am nañu tàppantal <laughs> Aziz mais merci toutes mes félicitations mais Aziz mais wuy ma kañ nga may nag may ma astafurlaa jabaru naar <laughs> wuyu ma su ma ñëwee sa dëkk ca frontière ba mbaa naar duñ ma téye boo bëggee gis policier buy sol caaya rek demal Mauritanie <laughs> day jékki-jékki rek ak caaya ji ajaat garamu bi ne eh c'est le commandement de colonel de l'armée ay la caaya xiit mbal la mbal xiit caaya